le 5 février 2023 ca arène nationale Kajoor production moo ñu fa woo Ibrahima Diop nekk ca bopp ba Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le bordelais de Villeneuve Saint-Georges moo war a jàkkaarloo nag ak Ama Baldé caatu Fallaye sëll bu ndaw bi borom Ama yaa yëngal pikin mbokk yi derbi bu ne mës na am ci làmb waaye derbi Fass ak pikin mooy derbi bi gën a mag looloo waral Ibrahima Diop ak Kajoor production ne làmb ji seen affiche point com dong lañ ci wóolu ñoom lañ ciy àndal ñu dugg ci ruq yeeg ruqaati war leen Gris Bordeaux war leen Ama balde naka la ñuy waajee ba ci biir bës bi ndaxte nag bës bi du bés bu ndaw te bës bu mag la kenn du ko coof Mboor Mbay Ousmane Ngef Mbaaw fii mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak si programme Lutte TV tey nag Omar ñu ngi fii parcelle seet si nag wala dajeg fekk ko xamante ni te yaakaar naa ne Sénégal ku ko xamul tamit dégg nga turam ku ko xa ku ko ràññewul tamit yaakaar ne boo gisee vidéo di nga ko xàmmee ni ma koy waxee rek kilifa nee nañ du si du si âge du si jëmm waaye foog naa ne si si xel la waaye tamit ci comportement rawatina nag ci kàddu yi nga xamante ni boo ko déggee rek sénégalais yi dañuy si bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye loolu yëpp nag c'est par le biais de ah, suñu frère mu nekk jili ah, wasaare borom naabooy ni ma koy tooñee rek seytaane bi ah, moo doxal loolu noonu yëpp dirisante ko ba mu sotti tey muy nag sant yàlla te ku ko xamul tamit dégg nga turam waaye avant rek dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan sur Lutte TV. taalal saa waaw taal naa ko waaw c'est ay eh, ca kilifa gi ñoo ngi lay nuyu di la ziar. alhamdulilah ginnaaw bi ñu sant yàlla. yow salaatu wa salaam ala rasulillah allahumma salli taslima. Mhm. ñu ngi leen di fay. Mhm. nuyu mbokki àddina. Mhm. mbokku diaspora bi. képp koo xamante ne soppe la rek ak képp ku ñuy bàyyi xel di ñu bëggee rek. ñu ngi lay jébbal suñu nuyoo di wax asalaamaaleykum. Mhm. bisimilah bisimilah sant yàlla lu tax nga tuddee sa bopp sant yàlla. waaw loolu de mën naa ne ci sama biir liggéey. Mhm. Euh, la ma dabee. Mhm. xam naa dañ ne ci réew moo xamante ni. ñu la gisee nga tàmmoo benn mbir. dana dem ba ñu la koy tooñee. waaw ñu la koy tooñee ba loolee wëy. waaye. dafa nekk tooñ boo xamante ni tooñ bu méngoo la nekk tooñ boo xamante ni bu gën ci jaam bi la mhm. te mu nekk loo xamante ni itam lu war ci jàmbi la mhm. waaw tooñ la boo xamante ni bu gën gën ci ñun la itam daal mhm. waaw boo waral ñu koy wuyoo pour ñi la xamul tey bëgg la xam tey buñ bëggoon xam fi nga dëkk fi nga juddoo wala daal sa sa origine fan la waaw man sama origine Saalum Saalum la lan waa Saalum daal waaye yàlla daa dogal ne euh, bi ma gën a nekk ndaw yàlla daf ma xiir ci ay làkkat mm-hmm. mën naa ne sax samay olof bi mu leere mm-hmm. jama ji tey ñoo tax sax samay olof si ñii laa leere parce que man fii ñëw fii def naa ne olof yi seet sax mënu ma ko woon wax mm-hmm. waaw lu ma doon wax ay làkk Nigéria yi làkk malien yi moom laa gënoon a dégg waaw waaye man sama origine fii la Saalum fii laa dëkk bokk ci foo xamante ni nag foo xamante ne macha allah fu ràññeeku fu baax itam. Mm-hmm. waaye daal man ma tàggat ci lii xiir ma ci lii. Mm-hmm. waaw. mu mm-hmm. nekk tamit liggéey bu doy waat liggéey boo xamante ni te yaakaar naa ne ni mu koy waxee rek Sénégal donte gëm nañ ko waaye ñu si bëri bu ñu si commentaire rek commentaire bu négatif lañ si gis par rapport ak peut ñi naxee ñi ñeek yu demee noonu waaye dafa am loo nu wax. mu impressé Sénégalais yu bëri choqué Sénégalais yu bëri parce que yaakaar naa ne si yow lañu njëkkee gis ku njëkk taxaw ne Coupe d'Afrique day ñëw Sénégal nga wax ko euh, yàlla suturaal la ba loolu noonu am waaye dafa mel ni euh, depuis lors donte nit ñi gën nañ la xam sax waaye nekkul looy daxee looy doxee nekkul looy waxee nekkul looy ndamu bi nga koy wax si si si fan nga toll. koy wax ci lu leer lu wér rek. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. bay wax. Mm-hmm. ci li ngay wax. ne biir ne lii may wax kat. teg naa mm-hmm. ko ci xam-xam teg ko ci jair teg ko ci baatin mm-hmm. mu nekk loo xamante ni loo xam la itam mm-hmm. bu subaa buñ la taajee di la ci laaj doo ci dellu ginnaaw wala bu jëf ja amee doo ci sa ngim wala doo ci am kër say d'accord njëkk parce que lañ la wax fu lañ ko tegoon ak ci loo xamante ne ci lu ñu yàlla jox la ñu gëm ne lii buñ ci demee suñ pas-pas ak suñ man-man buñ ci yeggee rek yàlla lañ ci may noonu lañ ci mën a yàlla may la ci ndam mu nekk tamit loo xamante yaakaar ne Sénégal yëpp a koy waxtaanee waaye tamit dafa mel ni tamit euh, am na si kuñ mën a jaar wala si ku mën a jaar ni ñu ko mën a waxee muy maanaam Matar Ba bi fi yàlla dogaloon mu nekkoon ministre des sports ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti rek sa sa sa diggante ak moom. waaw ku baax la. Mm-hmm. boo ko jàppee jàpp ku baax. Mm-hmm. soo ko séenee seen ku baax. Mm-hmm. boo ànd ak moom ànd ku baax. nit ku mën nitam la. Mm-hmm. nit ku am kóllëre. uute nag de ñi nga xamante ni dañuy jël alalu réew mi. Mm-hmm. di ko puukare woo wala di ci wane mm-hmm. yàlla def na na man. du toog. di bàkk nit wala non benn doomu aadama yaakaaru ko. ak loo ko mën a jox wala lu ñu mën a sékk. Mhm. waaye nit dina mel noo xamante ni. Mhm. foog nga waxal ko nag jikkoom. Mhm. foog nga waxal ko jikkoom. koo xamante nii ah mën naa ne day am na loo xamante ni sax <laughs> boo koy wax sax bu yàggee dafay nuru leneen waaye daal. pour koo xamante ne exception la daal ci réew mi ci réew mi bi ñu ko follee bi ñu ko déggee lu ma la def xol bu jeex man tey fu ma toog mhm. naa ko joytu mhm. fu ma mën a toog mhm. dina xam maa ngi ciy dégg sax léegoo léegi ba ay nit ñu naan fii ku sa nguur jeex rek dañ fi jógee c'est pas juste nañ bàyyi loolu li war ak li warut dafa am lu la tubaab indi ñaari chose ne la lii moo positif lii moo négatif li fa war a jógee boo ko fa jëlee rek yàq nga gis nga ndox dafa am yoonam tey ji yoonu ndox man su ma ñëwee na man dama koy baare ñàkkul fayda ndox ñàkkul fayda de heure bu mu waree jaar bu ñëwee dafay jaar xanaa nga defaree ko noo xamante ne jàllam da koy yombalal ne boo ko baaree waxuma la day yàq de mais dina yàq leneen lu uteeg la fa defaroon mhm. te dañuy yàq loo xamante ne xamuñ ko mhm. parce que dafa nekk secteur boo xamante ni dangay làmb mhm. di dajale di làmb di dajale léegi nag boo dajalee ba jàpp ci lu dëgër walla nga téye fi ñu ko defee moo warute man li ma gën a naqari mooy fi ñu ko deful dafa warute Mm-hmm. dafa warul daf dadul moment bi boobu mm-hmm. mënoon nañoo bàyyi ba yeneen jamono bay ba ñu génn ci yeneen ak yeneen ak yeneen ñu door ko fa def door ko def mm-hmm. parce que yow kuy wóor wóor dara ba am loolu nga fokk ko ci moom jox ko keneen kooku dina ko mën a protéger noonu wala dina xam tey walla xel moom est-ce yàlla jox na ko parce que ku nekk ak xel mu ko yàlla jox ku nekk ak sa xel ci li muy màcc. Mhm. parce que te kay tey ni mu mënee am nit. Mhm. man biir na ma ne man. Mhm. Matar. ni mu mënee am nitam. ki fi teg ni mën ko am loolu mën naa ko waat wallahi la azim man loolu ko garanti ni mu mënee am amee nit. en passation de service bi nekkoon na lu yëngatu loo xamante ni te yaakaar naa c'est une première dans l'histoire du pays tey ñuy wàccee nit muy def passation de service nga gis ñi ñu fu ne. naaj bu tàng bi rek ñi mënuñu woon dugg waaye mënuñu ñibbi mu nekk naaj bu tàng jër waaye dafa mel ni loolu euh, lu Matar war dund ak sénégalais yi la li si ëpp nag moom ni ma koy waxee rek mooy maanaam courtoisie oyof dina ci moom yaatu wàccee boppam parce que tey boo ñëwee wax ko soxlaam boo ñëwee wax ko sa soxla lim si mën la la lay la lay wax te lu mu la wax ne loolu lay def loolu lay def te tamit yaakaar ne loolu tamit ay valeur la yoo xamante ni tey baax na tey ñi ñuy jiite di ko yor muy maanaam dëggu man mi man mi mhm. na ma toog def benn émission mhm. pour pourtant moo wax si loo xamante ni tey jii. Mhm. lu doy waar. Mhm. mais après dafa jëf-jëf joo xamante ni. Mhm. man dama ne kii kii ban nit la man dama toog di questionner ne kii ban nit la. parce que tey. dafa dafa am loo xam ne da lay approché da yokk. parce que ñaari nit am nit ki nga xam ne gaaf la bu ñëwee ci sa ndaje. ndaje moom day dellu ginnaaw day tas. dafa am nit koo xamante ni bu ñëwee nag. su fekkoon benn daf fay fexe ba mu doon téeméer dafa am koo xam ne njiglaay la cib ànd ci mbir dafa am loo xam ne njiglaay la te luy sa njiglaay dañ ne boo ko bàyyi rek ñàkk nga te njiglaay la woon ci nguuru Macky Sall njigam laayam la tey nit ñooñ doon ko daw tey di bu campagne jotoon nga defe bu génnoon wax même bu dee ñaari nit la sax amul ko mën a yokkal hum xamul xamul sax wallaay. mu nekk tamit euh, leneen loo xamante ni te yaakaar nañ ko waxee régulateur social la woon parce que mbiru làmb ku ne xam ne làmb dafa bëri coow. sport dafa bëri coow bi mu ñëw boobu sport bi jaxasoo na loolu fédération yi gars yi jubóowuñu équipe nationale boo waxee ñu ne dañuy liggéeyante waaye dafa mel ni yàlla mayoon na ko loo xamante ni tey ku mu waxataanaloo rek nga nga bàyyi mu seet parce que même làmb ji gis nañ ne coow lu mu bëri woon bu doon bu bu ndaje amaan Matar Ba bu waxtaan ak gars yi rek da daan gis ñu bëri vraiment dañ ko daan rus si euh, maanaam tey lim leen daan woon. mooy li ma laay wax rek dafa mën nitam. Mm-hmm. du jënd nit ndax alal. Mm-hmm. mais day am nit ak ngir ngor ak kóllëre. Mm-hmm. te nit li ci am solo mooy ngay ànd nit ci ngor ak kóllëre. xam su may ànd ak yow ci alal. su fa alal jooju nekkatul nooy def. ku nekk day séparé tey mën sa nit mooy ngeen ànd ci ngor ak couleur parce que mooy loo xamante ni lu sax loo xamante ni lu dara dul dindi la loolu la séq ak moo tax muy am nit am na nag ñu ne lii bu mu ko métti am na lu lu lu neex luy ñëw ak yu demee noonu xam nga rek sa gis-gis si loolu fi ñu ko jëlee ne est mën na am fu kawee wala déggoo lu mu la hmm. ak fu ñu ko mën a jox xam nga dañ ne place ba nga ne hmm. na nga ko mérité. Mhm. na nga ko yelloo na la ji. Mhm. ak poste boo mën a am ci kaw suuf na la yow fa nga nekk te mu jig la. Mhm. nga nekk ci njariñ ña cay gis seen bopp. ah feneen fi ñu la mën a jox zéro la. boo si loon am ay milliards sax zéro la. surtout moom doon loo xamante ni tey population bi. majorité bi yëpp yow la ñu àndal. àndal ñu si def nañ luñ xamul de. Hmm. nañ loo xamante ni mënuñ ko defar te nañ dem ba ci kanam. waaye coupe du monde bi ñaari weer a fi des sant yàlla moo fi taxawal taxaw wax ni coupe d'Afrique bi day ñëw ñu bëri tiit yàlla du suturaal ko ba loolu noonu mu waxoon yépp am coupe du monde bi di ñëw. waaw ñaan dañ ci ñaan yàlla rek. Hmm. parce que mënoo cee jël benn engagement. ban engagement ngay jël. ak ku la ko jël loo. waaw hmm. ak tey jii boo jëlee engagement kan moo lay ñëw ko yokku la ci xam nga mbir li ci gën a neex mooy ma ne ci nit fekk ma ci. Hmm. di ma ci dooleel. Hmm. xam nga bu fekkee fee tibb suuf dafa metti waaw su ma amee kuy ñëw di ma jàppale ci tibbum suuf mi day gën a oyof si man. da ngay gën a ñimee da gën am fitu taxaw. xam nga dama njëkk a taxaw wax. ñu bari am ay polémique ñu bari. waaye bi ma gisee sama ginnaaw. Mhm. ne am naa ñeneen ñu may yokk courage ci li may def. Mhm. dama génnaat. Mhm. gën a amaat courage amaat fitu waxaat loolu. gën ko dëggal. gën ko dëggalaat. waa tey jii ñooñ buñ gisul buñ gisul loolu tey jii est-ce que tey dinañ dinañ fi mën a nekk di jël yenn engagement walla tey est que yaakaar gi. parce que nit ki nag ñaan daam lu koy daam lu koy kii de daam lu koy dooleel. est-ce que kee lim ci man kii dina ko ci man dina ci man ngëm-ngëm bi ci kee am est-ce que kii dina ko ci am mhm. affaire bi foofu la nekk mhm. parce que lii say aada d'abord danga koy gëm parce que ñu ci bare ngi nii ci état bi gëmuñu gëmuñu kilifa yi gëmuñu ne nit mën na ñaan dara yàlla may ko gëmuñu ko mhm. ñu ci bari respecté wuñ sax ña kii yi gëmuñ bokk kilifa yi sax waaye moom daf ne ci lii laa juddoo. Mhm. ci lii laa bokk. Mhm. ci lii laa doon. Mhm. kon dama ci boole sama bopp duma ci bàyyi dara. bu dee mbali la sax day jël forte yi. moom la dajale ba tey yàlla may ko lii mu ci am nii. tey ñu jël ko ci ñu jële ko ci saa saa gis nga. day laaj ñun buñ di naxante ñuy waxante dëgg. nit ki d'abord yow may toog. xam nga am na loo xam du cadre de wax dëgg mais waxal yenu maanaa. loo xam ne yow sa bopp nga koy wax. Mhm. ne lii moo yenu maanaam. Mhm. lii mooy lii existe lii mooy lii nekk. bañ a nax sa bopp yow sa bopp. Mhm. parce que am na wax yoo xamante ne boo koy wax sax. yow sa bopp ngay nax naxoo nit ñi. parce que di nga jàpp di nga wax wax boo xamante ne buy influencer nit ñi nga jàpp ne yow li nga wax wax bu kii la non non fekk yow sa bopp lay dellu. def nañ loo xamante ne wallahi lazim lu ñuy regretter la. loo koy cons conseiller loo koy ñaax moom ci li ko dese si xam naa ne am nañ rafet nañ jotat xale la am na lu bari lu ko dese tey si carrière politique am waaye jamono jii mu toll nii nii boo ko doon conseiller di ko digal dara lan lay nekk. ah mu mu ne ci lu mu nekkoon. Mm-hmm. fu mu teg tànkam. Mm-hmm. bu ko fa dara jëlee. parce que am am na ambition. Mm-hmm. am na pas-pas am na gëm-gëm. te la muy def amu ci xaar yàlla ragalu ci dara. Mhm. kon kooku xam nga loo koy dolli. Mhm. fa mu teg tànkam daal mu bañ ko cooy jëlee rek. Mhm. te xam ne du duut koy ñàkk. que dafa dafa dafa dafa am ambition dafa gëm. bëgg am pas-pas am yéene ji. kon kooku genre nit yooyu wallaay duñ ñàkk de duñ ñàkk dara. wallaay te luñ dëgmal. wala ci luñ dugg. yàlla def ci jàmm. da ciy def jàmm. Mm-hmm. képp ku àndal. Mm-hmm. ah soo yàqul du jóge ci ñoom de. sa relation moom fan la jóge ci kan la jóge. Euh, mi ngi jóge woon ci euh, suñ président Alay Kaza bi. Mm-hmm. boobu match la woon. mooy seen bi ñu waajal Coupe d'Afrique bi ne. Stade Lat Dior. Thiès. ndeysaan boobu. ay sëriñ yu fa ñëwoon ñu waroon dem Coupe d'Afrique bi ndeysaan mhm. maa gën a tuuti nag mhm. fekk boobu man yàlla dogal ci Allez yàlla boole ma fa may kii ba pare match boobu jeex mhm. léegi ñoom ñoo war a def seen préparation football am na beneen équipe bu ñu doon footballal léegi sëriñ yooyu ñu ne ñoom seet la ñoon sax ñu ne balaa équipe bi di football dañ leen di jox luñ defee sarax man ma dégg ko nag ma ñaawlu ko lool ma ñëw ma leen mhm. leen li ngeen wax ni fan ngeen ko teg mhm. xanaa dëkku leen ci dëkk bi mhm. yéen ngeen dëkk ci dëkk bi benn ne ay patriote ngeen ay citoyen ngeen ne ba pare ngeen ne nañ leen jox lu ngeen kenn du leen jox dërëm te fii gars dañuy dóor deux zéro ñoom ñëpp wàcc ñi ci fédération Sénégal bi genn wàll gi jox ba moom sama wàcc ñu ne ma yow yow yow da ñoo yow wala li nga wax foo ko teg. Mm-hmm. man leen li ma wax fu wër laa ko teg président la Alay Kaza bi ñëw ne ma muy ree moom xam na ma mm-hmm. xam na li ma capable ak li ma sañ. Mm-hmm. mu ne léegi bàyyi leen ko ngeen xool li mu wax ndax dina ko defam déet. bañ leen gañe ñu bàyyi ma ne ci premier mi-temps bi rek la dogal ma dugal ci deux bi yëpp. ñuy dem ñuy dem. match bi jeex na deux bii noonu la noonu lañ jàppante xamante. Mm-hmm. parce la ko président Alioune Kase di wax xamal ne ko maay kan affaire mm-hmm. ci lañ jàppante muy ku baax ba ci ni ci nawet bi ñu génne ni nawet bi ñu ne nii rek. Mm-hmm. wallaay mu baaxee ma engrais. engrais bu bare bare bare bare bare wallaay may ma teraanga ju bari. kontaan ci loolu di ko ci ñaanal yàlla nag. wallaay ah. ku baax la de. ku baax la de. ku baax la mm-hmm. ku gën la mm-hmm. ci fédération mm-hmm. ba ci zori zori <laughs> xam nañ ko de zori xam nañ ko muy ku baax ku yaatu ku oyof ni ma koy waxee rek tey ñun moom fi ñu dëkk parce que ñoo bokk dëkk jaxaw si fa la juddoo fa la yaroo fa la màggee fa la fubalee nekkoon def fa lu ne si sport ba yàlla dogal mu dem Fatick kon tey bu ñu ba dénk ko sport kooku xam na Fatick damay wax la rek maanaam Matar Ba ak ñun ay parent lañ parce que lu bu tey bu Dakar doon tàkk tey ñuy bokk yoon dem ñibbi. waaye ni ñu koy waxee rek tey tamit nit lu métti métti nga waxal ko li nga xam ci moom. mooy maanaam dëggu man loolu la ma gën a marqué maanaam dëggu goo xamante ni lu mu jël engagement ne da koy def da koy def te yaakaar ne loolu la ñuy xaar ci leader politique waaye tamit loolu la xaar tamit ci ci kilifa. ah loolu loolu day mën na ko loolu de moom loolu moom loolu lay doxee loolu lay jëfee. loolu lay jëfee. wallaay loolu day lay jëfee moom lay doxee. waaw mhm. ah, te loolu tamit lañ koy ñaanal yàlla rek mu continuer ko jàmm daal. jàmm ak daam waaw. tabb nañ nag ku bees dañuy ñaan yàlla mu gën si sport muy football bi na làmb ji nga xamante ni tey ci la ñuy yëngatu muy muy Lutte TV boo amoon kàddu soññe boo ngi koy soññee moom ki ñu fi tabb ku bees. Ah, na fexe na fexe daal mhm. góorgóorlu rek. Mhm. na fexe góorgóorlu rek. nga xam ne góorgóorlu la parce que xaw ma ko. Mhm. xaw ma ko mhm. mënuma koo waxal dara. Mhm. waaw na góorgóorlu rek. na góorgóorlu daal loolu daal mooy kàddu yi na mu tàmbalee foofu. ah, ah loolu kese ci am solo de. góorgóorlu. Hmm, parce que population bi ñàkkuñ fay ñoom dañoo seen fulla yu mat sëkk sëkk sëkk sëkk waaw. loolu moom xam naa ko ci moom. laa koy yóbbante. waaw. kàddu tàggatoo yi lan lay doon ci Lutte TV yaakaar naa xam nga Lutte TV moom kenn dootu ko présenté si si Sénégal sax. waaw kàddu yu mujj daal di ñaan ci réew mi jàmm. Hmm. waaw ñaan ci réew hmm. ba lépp loo xamante ni luy indi musiba la. Hmm. wala lépp loo xamante ni luy gàkkal doomu aadama la. wala lépp loo xamante ni luy lor. ak luy téye. Ah, yàlla fànkal ñu ko hmm. parce que réew jaxasoo na lu ne diñ ko fi gis hmm. lu ne itam danga ko fi dégg hmm. waaw feebar yi bari na tawat yi bari na cooy yi bari na ñaan yàlla daal yàlla dàqal ñu loolu yépp waaw di asalaamaaleykum ngeen ñaanal yàlla itam yàlla defal leen jàmm saxal leen gën leen a kaweel waaw asalaamaaleykum. jërëjëf Omar yaakaar naa am na solo lool lool lool muy sant yàlla di ko nuyuwaat bu baax a baax si disponibilité bi oyof gi ak yaatu gi parce que yaakaar naa tey ñu ko bëgg a gis bëri na waaye yombalal nañ ñu ko dañ koy ñaanal rek moom tamit yàlla gën a dëgëral taxawaay bi parce que genre gii nii ñoom la Sénégal gi soxla maanaam ñuy liggéey te soxlawuñu bëri bëri bu bëri ñuy liggéey te soxlawuñu tout le temps di wane wala di wax ne eh, wala maa def li wala maa am li kon yàlla naa yàlla gën a dëgëral taxawaay bi waaye tamit di bëgg rek suñu frère Djily Kébé borom di ko naan yàlla na jàmmam yàgg waaye itam di nuyu rek Ousmane depuis Sandaga waa Touré Sport yëpp yëpp ku ma xam xam ne may yi may sol moom fu ma tënee ma sa may rafet na Touré Sport ñoo fiy jaar ah, muy Ousmane di ko bëgg Ahmed Fata Fallou ah, Mohamed beneen Mohamed bi vraiment Omar Gaye yëpp tur équipe Touré Sport bi yëpp maa ngi leen di bëgg di leen ziar laay bu def ah, number one di jox ñëpp rendez-vous Omar ba beneen yoon incha allah. le 5 février 2023 ca arène nationale Kajoor production moo ñu fa woo Ibrahima Diop nekk ca bopp ba Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le bordelais de Villeneuve-Saint-Georges moo war a jàkkaarloo nag ak Ama Balde caatu Fallaye sëll bu ndaw bi borom Ama yaa yëngal pikin mbokk yi derbi bu ne mës na am ci làmb waaye derbi Fass ak pikin mooy derbi bi gën a mag looloo waral Ibrahima Diop ak Kajoor production ne làmb ji seen affiche point com dong lañ ci wóolu ñoom lañ ciy àndal ñu dugg ci ruq yeeg ruqaati war leen Gris Bordeaux war leen Ama Baldé naka la ñuy waajee ba ci biir bés bi ndaxte nag bés bi du bés bu ndaw te bés bu mag la kenn du ko coof Mbaye Dia Diop maa ko fiir ku leen ñamal Mboor Mbaye Ousmane Ngem Mbaaw fii lañ jaar